téléspectateur de Kermassar Info merci beaucoup jëri ngeen jëf ci and bi nga and ak seen chaîne YouTube di Kermassar Info di leen wax rek ngeen continuer di abonné ci chaîne bi waye aussi di bës cloche notification yi ndax ngeen di jot suñu euh, ay vidéo buñ ko dugalé ci saa comme ni ngeen ko xamé nak boobu ba léegi Kër Massar dalal li nga xam mom modi Bercy Bercy ñuko da déggé fenn fu nekk fenen fu dul Sénégal tay nak euh, Diagne Events nar ko indi fi ci Kermassar nekk doomu Kermassar nekk jeune entrepreneur war fi indi ki nga xam mom modi Wali Blaga Waly le 29 avril fi ci terrain Yékini donc ku wax aussi programme bu mel noonu wax xam ne am na ñoo xam ne dañuy nekk si ginnaaw tey nag ñu ñëw seet si ñenn ci partenaire di Tana boutique féetee fii ci station bu Kër Massar balaa yàgg dañ koy bàyyi mu présente moom aussi wax lan moo tax mu porte show am ci Diagne Events ngir waajal li nga xam ne moom di Wally Ballago Seck alors Fatima salaamaaleykum. maaleykum salaam mon frère. alors euh, Fatima euh, kan mooy Fatima ci noonu ma ko waaw Fatima benn jeune entrepreneuse la bu yëngu ci commerce vente de tissu spécialement di def couture aussi en même temps. alors euh, boutique bi fan la féetee ci waaw boutique bi nag mi ngi tudd Tana boutique mi ngi féete fii ci station Kër Massar alignement GBS bi en face Top Caro mooy boutique Toussy bi am na aussi euh, beneen boutique boo xam ne prêt à porter la mi ngi nekk euh, ci côté pon bi boo wàccee pont bi juste di dem ci yoonu clinique Tunkara bi waa Diagne dafa nekk suñu benn frère bu yëngu ci événementiel mu nekk benn jeune entrepreneur boo xam ne dafa nekk nit ku am ambition nit ku bëgg liggéey loolu moo tax ñu jël suñu choix porté ko ci moom ndax ñun tamit ci liggéey rek la ñuy dox. kon Tana boutique fan la toll ci préparatif yi pour euh, Wally Seck bi. waaw Tana boutique nag moom mi ngi ci préparation bu baax a baax ndax dañu nekk ay partenariat ak euh, Diagne ñu ngi ci euh, préparatif yi bu baax a baax macha allah waaw. waaw maa ngi wax sama client yi ak ñi may seetaan waa Kër ma Massar ñëpp bu kenn manqué incha allah ndax lii nii benn affaire bu doy waar la.

di ko féliciter ci euh, engagement bii mu jël ak initiative bi ñu koy ñaanal mu yeggali ko ak jàmm ak salaam incha allah bu soobee yàlla boobaa dina xam ne ñun tamit ñëw nañ. ànd ak suñu délégation soobee yàlla. mi ngi noonu donc euh, lépp ci bokk ci préparatif yi ngir waajal li nga xam ne moo di Bercy Kër Massar Wally Ballago Seck war fi mën a ñëw ñu fàttali leen ko le 29 avril la 2023 incha allah fii ci Kër Massar donc waa Kër Massar yéen yéen a aye seen doom dem na décroché ji ki nga xam ne moo di Wally Ballago Seck ngir indil leen ko ngeen bégee ñëpp bégee Kër Massar jëm ca kanam jërë ngeen jëf.